addu leeral tuuti rek ci kàddu yi nga xam ni démb ministre de l'intérieur yëkkati na ko ndaxte gis nañu conférence de presse bi nga xam ni am na moom ak naataangoom bi ñu naan euh, ministre des forces armées ak ministre de la justice bu ma yeboo sax à la suite de Cheikh Tidiane Dieye mi leen woowee les quatre mousquetaires xaw ma ma woowee les trois larrons de la République mais des larrons bien marinés nag à la sauce de l'injustice ñooñu rek doy nañu cocktail molotov dañu naan xale yi dañu créer cocktail molotov mais ñooñu ñooy cocktail molotov à à trois parce que explosion bi Sénégal nekk di dund ñett ñi ñoom ñoo ko waral ci seen ay doxalin kii ci justice bi nga xam ne daf ko jël di ko bind ak bindee nu mu ko neexee euh, kii ci ñi nga xam ni xamul lan mooy rôlu FDS ba tey mu dugal leen ci loo xam ne mosuñu cee dugg dans l'histoire politique du Sénégal ñëpp dañu mës a respecter suñu force de défense et de sécurité mais kii itam ci ay allégations yoo xam ne jàpp na ni muy ministre de l'intérieur mën naa wax ba dippi wax ay ay wax yi wax yi dul dëgg wëlbati ko Sénégal nag jamono yi dafa naqaree waxee parce que xale yi euh, su ma nee xale ñun ñëpp ay xale lañu parce que dañoo bokk ci génération boo xam ne ñu dañ naan maturité ñi naan immaturité ñi naan responsabilité euh, réew mi dañu ko soppi parce que ñi nga xam ni ñoo jiite te war a wax dëgg ñoom ñoo deful seen rôle te xale yi nag ay la yeween mag ñee leen jur xale yi mag ñi ñoo leen jur mag ñee leen meññ mag ñee leen yilif waaye bu ay mag sañee taxaw ci penc di wax wax yoo xam ne ay xale yu tuuti mën nañ koo teggi ba ay kaddu yoo xam ne sax dem nañ ba am ay mafia kacci kacci ndax loolu yëpp lu ko indi mooy ay mag yu dul wax dëgg ñàkk wax dëgg weesuwul euh, nga projeté sa fi vidéo teg ko génne ci say élément ay sénégalais yu filmé vidéo boobu moo am organe bu tudd France 24 nga xam ni Sénégal taxu ko jóg dañu am benn émission spéciale boo xam ni fépp vidéo nekk ci àdduna bi ñoom dañ koy càmbar wax authenticité authenticité wala ou pas de la vidéo am na vidéo yoo xamante ne day yàgg nit ñu jël ko di ko utiliser ci ay contextes yu nouveau ñoom loolu mooy seen rubrique ñu won la ni vidéo boobu gis nañ ci loo xam ne la nga wax amul indi la complement de la vidéo amoo looy wax lu dul attention vidéo yooyu ay montage la ci penc mi ci pencum Ndakaar ci pencum Sénégal ay magum jëmm yor des preuves de li nga wax amul yow nga taxaw indi leneen jël ko imputé ko aux réseaux sociaux nan la réew mi di baaxee nan la réew mi di baaxee bu nga xamante ne ñi ñu war a jiite nekk suñu état ñoom ñoo nekk un état bandi un état voyou un état boo xam ne dafa am ay milices un boo xamante ne ministre de l'intérieur dafay taxaw naan euh, dañuy def ordre public parce que dafa am ñoo xam ne dañuy toog ba mu neex leen song kër jàmbur gis ngeen fii suñu ay rang suñu suñu suñu tante suñu suñu mag suñu suñu mbokk muy ay dëmbooj këram dañ ko song taal ay otoom permanence su euh, euh, président Gakou ñu taal ko fii ñu song ko kan moo njëkku song yi ñoom daal bu leen neexee ñu orienté débat bi jël violence bi bu ko xëpp opposition bi mais on ne parle pa quand c'est l'opposition qui subit les les violences fan la violence yooyu jóge li leen laaj du loolu li leen laaj dañ siy dellu si mooy nervi yi ñu gis ñuy wàcc ci pique bu policier yi lan lañu fay def kan moo leen embauché lan moo tax nervi yooyu piquet bi ñu gis leen ñuy dugg biir APR lan moo tax ñu gis ay nervi ñuy tiire suñu ay doom ba ñu dee li leen laaj dafa simple bu ñu mënul wax dëgg nañu rangé wu ñu toog mais mënuñu taxaw di ñu wax loo xam ne du dëgg suba ba ngoon penc mi su yàqoo société bi su nasaxee ay mag yu taxaw ëllëg démb daan nañ jàpp ni nit ñi yeewuñu parce que dañ daan ñëw rek wax nit ñu kenn du xam mais léegi lu la waay wax da nga jël sa téléphone nga tapé ko Google tontu la lu nit xamul sax Google mën na la ko wax c'est l'ère numérique loolu nag da leen a xaw a dépassé ils ont un réel problème avec les réseaux sociaux parce que am na ko fi wax léegi dañoo museler la presse ñu ngi leen di mastaw ñu ngi leen di wu di leen jaajëfal li tax ñu leen di jaajëfal mooy ñu bare ci yéen am na vidéo yuy génn yéen a ko filmer en réalité malgré que bàyyi ñu leen ñu di nga def seen liggéey da ngeen ko amul fu ngeen ko diffuser parce que bu ngeen ko diffuser ci télé ñu couper signal bu ngeen ko diffuser ci yenn plateforme yi sax seen ay patron dañ leen di menacer donc réseaux sociaux yi moo fi nekk parce que là les gens peuvent ouvrir des comptes diffuser les vidéos d'où France quatre moo ñëw filmer vidéo yi déedéet ay sénégalais yoo xam ne kenn ku nekk ak sa partition ci combat bi ñi seen ay balcon lañ nekk ñi seen ay terrasse ñi seen ay fenêtre ñu gis ay jigéen ñoo xam ne dañu làqatu di di filmer ku nekk da nga def sa rôle ci combat bi ñooñu ñoom ñoo filmer ñu jël ko teg ko maintenant film bi moom bu ko tegutoon xëy na bu ko neexee mu ne amut mais moom moo xool la ka ca neex mu dagg ko moo tax ñu ne fen du bijjaaw te booy wax waxal dëgg rek parce que dëgg la nit mënul changer mais boo waxee contre vérité problème bi mooy pour nga mun ko ñëw réparer suba bu ñu la laajee doo mën a wax li nga waxoon démb parce que da am problème pour fàttaliku li nga waxoon démb loolu moo dal gouvernement bi fi nekk.